wajal kalaami rasidan wa mursidan wa fikrati nawir waxal bi arsida mbokk yi ni bàyyi xel fan mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk biti réew tey bàyyi xel seen seen bu am solo bii muy le grand secret wolof ñu ngi leen di waxte asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santatee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jaajëfal mboolem mbokk yi ñuy topp ak fu ne mbokk yi tey dañu fas yéene ànd ak yéen ci benn secret bu am solo boo xam ne mbokk yu bari dañuy faral di yónnee message di ñu ko laaj muy secret boole ñu di ko wax nopp muy benn turu yàlla boo xam ne bu gàtt la waaye nag bu doy waar la lool ci wàllu boole. mbokk yi tur yàlla wi de la waaye lu bare bare ay njariñ la bokk na ci ay njariñam bala ñuy dugg ci wàllu nopp képp koo xam ne da ngay tukki ak tukki bi fu man di doon nga bind turu yàlla bii ñuy wax ba doom sa juróomi baaraam yi loolu de mbokk yi képp kuy tukki boo ko xoolee di nga dem ci jàmm di nga dikkat ci jàmm muy turu yàlla woo xam ne tamit di wàllu mahabba muy boole baax na ci lool bu dee wàllu bayre gaaw na ci lool waaye li ñuy gën a sori ci secret bi rek dañ lay wax yow mi gan ci pass bi boo abonné gul ci seen bi ñoo ngi lay wax nga abonné te seen vidéo bi partage ko mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal yëpp ay vidéo yi njariñ la te njariñ nag moom nu mu gën a yaatoo ci la gën la wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu listixaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit à distance mo xam nga nek ci rew mi wala nga nek biti rew te bëgg ku la defal ben ci ñaar yi man nga jokk ak ñoon ci numéro bi muy 77 684 28 28 684 28 28 numéro bi whatsapp la mbokk yi faral di laaj garab yi kàttan muy garab yi mus yi ñi ngi leen di xamane garab yi amaat na jamono ji képp ku ci yittewoo rek mën nga ñu contacter ci numéro bi foo man di nekk di ci jot ci nim mu gën a gaawee muy 77 684 28 28 mbokk yi dañ leen fàttali lu neew rek ci njëriñ yi nga xam ne garab gii di mus xam lamboo na ko mbokk yi garab gii di mus xam garab la goo xam ne dafay yokk kattan bu baax a baax garab la tamit goo xam ne dafay yokk mën bu baax garab la goo xam ne dafay dundal wallax njaan ak yeneen njariñ yoo xam ne garab gii di mos xam lamboo na ko waaye nag loolu day ay njariñ yu néew yoo xam ne dañ ne nañ ko ci wax rek képp ku siy woo rek moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew man nga jokkoo ak ñun ci numéro bii muy 77 684 28 28. mbokk yi kon xanaa dañuy dikk ak yéen ci secret bi ñu indil tey muy turu yàlla wu gàtt. te bari ay njariñ lool muy baddu lii képp koo xam ne yàlla dafa dogal ab diggante moo xam muy ñaar ñuy sëy wala ñaar ñuy bëgg a wala ñaari xarit yoo xam ne ab réeroo dafa am seen diggante fexeel ba jël baat bii di baddu nga bind ko ci ab paak baat bii di baddu nga bind ko ci ab paak boo ko bindee jëmmi paaka boobu après moom ngay jël nag nga wut lu mel ne pomme wala banaana maanaam nga dagg ci nga dagg ci pomme boobu wala banaana ba fexe ba wenn xar mu si nekk nga jox ko kenn ki mbokk yi loolu buñ koy lekk bànneex bi ñuy àndal buñ diggante dina raw loola muy lu gàtt waaye muy lu efficace te baax lool day njëriñ yoo xam ne ginnaaw ñu bari dañ koy faral di laaj. moo tax ñu ne tey nañ ko indi baaxe leen ko xam naa kon lii lañ amoon yéen a tey partage ko ak yéen ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci beneen secret di la wax ne ngeen continuer di abonné tey partage vidéo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.